yàlla bu baax bi ñu fi dajee euh, dañuy wax li ñuy nit fi tey mooy tey dañuy teg xeer bu njëkk te nee naa sànq dañuy ñaan aussi euh, fekkee euh, mu jël ubbi bi mooy bu ñu demee ba peinture ba ne liggéey bi tey lay tàmbali d'abord dañuy remercier la Croix-Rouge sénégalaise di gërëm aussi Croix-Rouge bu Thiès parce que ñun seede bi ñu mën a def mooy ci Croix-Rouge bi nga xam ne ñoom lañ nekkal donc noonu la ñuy xoolee bu mag bi mais ñu ñu nekkal wax naa ko ci biir saal bi man de ñi Euh, te ñuy ñëw ci ndigalu président Alsane Ndiaye euh, docteur Thioune euh, di leen conduire bu ñuy ñëw délégation bi ñu ràññee ci ñoom Dieng ñu ràññee ci ñoom Guèye ak ñoom Malick Sow ñooñu bu ñu fa dee ñëw vraiment da nga xam ne ñii ñu engagé lañ à vraiment accompagner l'institution parce que nous sommes un démembrement de l'État, mais ñoom aussi c'est des auxiliaires du, de, du pouvoir public. Ce qui veut dire quoi Que j'ai l'habitude, de mon habitude de dire euh, c'est seul le peuple qui est souverain. Donc, ce qu'il def, c'est qu'il y a Askan Berek. Il y a Askan Berek, c'est le centre, directeur général, ministre am Képp ku ñu fal nit la képp ku ñu nommé nit la nommé kala nommé nit ñee ko fal donc ñii fale ñu am solo donc suñ ñëwee ci projet bi mel nii tey Croix-Rouge dox te lii ñu fi indi tey njeexitalu chantier projet bu mag la maanaam am na lu bari lu ñu def réaliser nañ fi ay ay jardin dans les écoles réaliser nañ ay construction wax naa ko sànq ay ay dal yu yàqu ci te ay tali euh, tabax fi ay case de de santé ci ay biir poste de santé tey mujjantal bi nag mooy programme mu quatre cent cinquante millions du programme caaxaan bëri na fi partenaires yu ñuy dégg seen pexe bu baree ba bari du weer cinquante vingt cinq mais quatre cent cinquante millions koo yëkkat du ko dugal ci projet wóolu nga ña ngi koy def ci ñoom. te je crois que ñu tax tey projet bi taxaw ba lu mel noonu dugg ci vraiment ñooñ tam ñu jar a félicité lañ te wax ni croix rouge nag euh, ñun Thiès lañ dëkk nekkoon nañ fi bu yàgg ba tey wax naa sànq dañuy gërëm bu baax suñu papa Abdoulaye Diong li tax ma wax ko mooy fi croix rouge jóge ak fi mu yegg tey benn équipe bi moo koy def ñoom ñooy relante ci seen biir di ko réaliser démb papa Abdoulaye Diong la ak ñu wax ñoom Ngoné Sow ak yooyu tey Alassane Ndiaye la ak ñoom docteur Thioune nag ay jee donc ñooñu sont à féliciter leur vie dañ ko jox pour la croix rouge te xam nga volontariat bu ci nit àttanee sacrifier sax liggéeyam di ko def boo ñëwee ba yegg si dafay jar nga fesal ko askan bi xam ko te loolu moo am solo am na ñoo xam ne tey boo leen bëggoon dëj fii ci place docteur Diouf ba looy njëkk a wax tarif fay la ñuy wax boo waxul waxu fay duñ fa liggéey dem nañ seen yoon donc civisme bi ñuy wax du ñëpp ñoo am engagement wu mën a donc bu fi ñëwee dañuy gërëm ñooñu di wax ni unité bii ñuy tabax. dafa ñëw ci waxtu bi ko Thiès bi ko Séné Afrique soxlo bi ko Sénégal soxlo mais bu ko dëkk yu mel na Thiès soxlo parce que bu ñu wax programme de résilience dafa am ay cible cible yooyu nag ñoom xam nañu ko xam nga boo déggee financement bi tey fañ ko joxe nga xam ni kon ñii defuñu par parloo bii Thiès lañ ko defee mais su ma juumul euh, juróom-ñaari ñu indi yëpp amul bu ci génn commune Thiès moo lay wan ne bu ñu ñuy wax ay mbomboy dañuy wax ay ay ay ay euh, daaru xuddoos ak yooyu donc liggéey bi ñu leen sant ñu ngi koy def te loolu moo am solo leneen li nag mooy man en tant que maire je tenais vraiment à liggéey bari mu ma doon xaar mais dama ne naa ñëw personnellement pour won présidente national que ñii suñu ay partenaires lañu partenaires yoo xam ne nag du ay wax nii rek liggéey bu ñu yëkkati au niveau de la mairie croix rouge mu ngi ci ba ci gis ngeen euh, transfert yi ki ki doon wax léegi nocturne ci covid bi yëpp croix rouge da doon ànd ak ñun di dugg dans le département ñoom ñoo doon def liggéey bi ñun chauffeurs yi kese lañ yoroon ñuy dugg moment Covid bi nga xam ne ku nekk yaa ngi téye sa doom ñoom ñuy engagé wu di dem di jëli ay malade ay jigéen ñu war a wasin boobu couvre-feu bi am na di leen yóbbu ci ay poste de santé bu ñu wasinee pare ñu delloo loolu bu ko nit dee def dafa jar nit ñi xam ko gis nga Sénégal yi ñu war a woon ci télé yi mooy yii gërëm ñi nga xam ne ñu ngi def lu baax bàyyi caaxaan ñu war a nga xam benn solo ça ne fait que pervertir les ñun engagement bi ñu jël c'est te wax naa sànq ni du ku ñu yabal maire en personne moo jël engagement te fii ma génn rek maa ngi commencé waxtaan ak Henri ci post pour ay emplacement yoo xam ne jàpp nañ ni écoulement produit fa la gën a yombe maa ngi koy wax léegi ne ko HLM fii ñuy jaayee produit bio yi nga xam ne par weekend la marché bi di am tey bu ñu fa amee kiosque bu mucc ayib tey ñiy def si bio bu ñu ñëwee parce que li ñuy def aussi bio la bu bio la c'est du produit naturel qui la ñuy trans qu'elle transforme ñooñu foofu tey amul fu gën a gaaw pour écouler nga dem seeti fële suñu gox ba côté Grand Thiès def ko fa dem côté Grand Sane yi nga xam ne dañuy soxla produit te mun ci am accès fa ñu defee foire bi nga dem autorisé leen foofu ñetti emplacement déjà faciliter na nit ñi ñuy soxla tey produit te mënuñu ko am nga xam da ngay génn sa kër dem jënd ko doxaat dugg loolu la ñu am ñun parce que bu partenaire bi joxee partenariat win-win la léegi amoon na yëpp loolu la ñuy wax mais di la jox rek nga croiser le bras déedéet dañu woon partenaire bi ne ko tabaxal nga mais nag fañ koy jaayee ak nañuy fexe ba mu jar ñu dinañ tut pexe pour jigéen ñi gis seen bopp. parce que aussi amul njëriñ nga jël lu toll nii tabax ko ci ñaari weer monter ci machine yëpp ba pare ñu ñëwaat fi at ñu naan machine bi panne na fi ak li ngay xew ci far rek ay lii mënul dem parce que courant baa taxaw dañoo bëggoon fu ñu jaayee amuñu ko non je crois que c'est pas du tout sérieux autant que ñu jël 450 millions dem dugal ko ci leneen mu amal ni asken bi njëriñ en tout cas ñun yéene biñ ci am. mooy engagement bi ñu jël te xaaruñu pour tabax bi yegg déedéet loolu je crois que c'est prendre faire du retard Thiès dafay dox te place boo bàyyi tey bu subaa ñu taxaw fa parce que dëkk bi moo laaj loolu depuis l'avènement de l'aéroport à Thiès Euh, mais c' est des enchères muy domaine foncier muy domaine fu ci nekk dëkk bi dafay daw vous voyez que maintenant l' équipe nationale joue constamment ici Thiès commence à être un hub au niveau international li xew nag ba xew mooy demee demain dinañ lëkkaloo croix rouge ci lañ dëkk sax parce que ñu ne ñoom ñoo nekk ñu dem doxi loolu def autorisation yi ñoom ñu xam ne emplacement yi fii ñaari weer su kii bi di pare fii dañu war a commencé jaayee produit loolu vraiment c' est un engagement du maire et féliciter l' équipe de la croix rouge qui est constamment programme bii rek et jeune homme euh, voir les beaux yeux de qui que ce soit pour wax loo xam ne gëmuma ko li tax ma ñëw fii tout une matinée taxaw c'était pour aujourd'hui de des Thiessois li nga xam ne xale yi ñu ngi koy liggéey te lu am solo